asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk téléspectateur Baol Times TV mbégte kontaante la ñuy am tey présenté leen seen cinquième numéro tool tey nag euh, ñu ñëw fii ci centre horticole région de Diourbel seet boo xamante ne nii maanaam day def yëpp ndax boo déggee tool yi koom-koom da war a xam ne mu ngi yëngu ci wàllum sàmm gi ak di yëngu tamit ci wàllu mbay mi maanaam agro muy jeune boo xamante ne dem na jàngi fa mu war a jàngee boo génn. def ay preuve nekk si liggéeyam bi di liggéey. mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxoon sànq ñu ngi fii ci de la région de Diourbel dañu taxaw ak Sidi Bara comme ni leen ko waxoon ak benn collègue am de travail ñu naan ko Malick Faye tey Sidi ñu ngi lay nuyu. Lamine maa ngi fay maa ngi yi Baol TV bi waaw ñu ngi jaajëf ginnaaw si bu nuyu boobu noonu jàllee eh, xam naa balaa ñoo dugg maanaam ci li xew fii nii Sidy eh, fi ñuy njëkk jaar rek mooy Sidy pour téléspectateurs yi xam Sidy fan la jaar Sidy eh, fan nga jàngee métier bi. jërëjëf la man man maa ngi tudd Sidy Bara Thiam maa ko defee secondaire ko defee dañ ko laajal def ko formation en horticulture daal di daal di daal si ba léegi tamit maa ngi dañuy ñëw sa collègue bi nii ñu naan Malick Malick mu ngi lay nuyu. waaw di la sant la gërëm di nuyu téléspectateur Baol Times di rafetlu tamit seen taxawaay. waaw sëñ Malick ginnaaw bi nga nuyoog téléspectateurs yi ba léegi duñ la bàyyeegum euh, sëñ maali ba léegi ndax mën nañoo xam yow it euh, fan nga jaar ak maanaam euh, xëy na métier bi nii fan nga ko jàngee waaw man sama si sama si samay études fii laa ko defee jaaree ci école primaire Ibrahima Koy moo nekk ex régional jaar fa nekk CNT collège jaar foofu def 30 octobre boobu bu Cambérène jaare fa nekk ci ak ànd ak ay tubaab yoo xam ne waa agriculture international ñu ñu tàggat ma ci agroécologie euh, ak yeneen euh, yoo xam ne am naa expérience ak voilà euh, yaakaar naa ne explication bi leer na kon si di dañuy ñëwaat si yow rek yaakaar naa ne kon question dañ koy séddale en deux parties parce que instant nii ñu ngi wax si wàllu tool yi koom-koom comme ni ñu ko waxoon loolu comme que mu ngi jëm si wàllu élevage ak la jëm si wàllu mbay mi kon donc si di euh, li lay laaj xam naa ci côté wàllu élevage bi lay doon euh, tey ñu fekk la fii ngeen di tàggat ay xale ci lu jëm si wàllum yarum ginaar maanaam aviculture bi euh, tey yarum ginaar boobu noonu ci départ bi lan mooy njëkk jiitu maanaam balaa ngay yar ginaar. waaw jërëjëf Lamine yarum ginaar moom defe naa ni fi mu toll nii ñëpp xam ne ni boo lekkee leen koy jàngal sax da nga naan la conduite d'une de de coulée de chair wala conduite d'une bande de fourpondeuse. boobu boo ko déggee mooy xam nga conduire moom mooy dawal. dawal xam nga du kenn du dawal te amoo permis. Mhm. donc moo lay wan ne ku koy def ku nekk da a am ay liggéeykat yu wane ni effectivement yow mii affaire agriculture laajul taxawuñu da nga koy maîtriser def ko soo jugee am na dañ koy def di ci am ay perte c'est parce que maîtriser wuñ ko. daaruñu fa ñu war a tàggatee day ñëw rek def amateurisme ñu jël seen am nañ seen xaalis. effectivement xaalis lañ ci wut am nañ seen xaalis jënd nañ ci ñëw defar rek dafa ni après noo dem donc ce qui est bu ñu amee ay problème nag dañu commencé daw ku nekk ñu dem naan ni lii kërëb kërëb di am ku nekk ñu koy sànnante te fekk te ñoom seen bopp ñoom ñoo amul connaissance wala defuñu formation yi pour mën xam lan la ñuy éligible ah, kon su ma la déggee maanaam euh, savoir avant de pratiquer maam nga wax maanaam na ngay xam li ngay liggéey ba pare balaa nga ciy dugg voilà kon euh, duñu la bàyyeegum ba léegi liñ bëgg a xam mooy tey euh, Euh, tey poussin maanaam tey soo ko jëndee nga ni ko sa fi nga koy yaree ndax euh, mën naa am benn kees bu ndaw rek def fa 100 poussin yar ko fa wala nguuna bu ndaw def cinquante wala si yar ko fa wala dafa am spécialement site boo xam ne fa lañu war a mën a yare ginaar waaw waaw yi moom daa am daa dafa am ñuy wax ni instant yi bu fekkee bu da ñëw rek daal di daal di daal di dajale fa 50 poussin teg mhm. li ñuy wax booy commencé da ngay respecté li ñuy wax cercle protecteur wala cercle de la wax benn cercle la booy defar cercle bi mu nga koo defaree ak contreplaqué oos bi wala nga defaree ko ak lu ñuy wax isorel wala nga defaree ko lu ñuy wonee lu ñuy waxee lu ñuy wax kii girage girage yi nii mhm. soo jëlee benn girage boo xamante ni largeur bi de 1 mètre vingt la mhm. danga koy jël nga def longueur de 2 mètres mhm. nga dagg ko en trois parties donc da lay jox largeur bu 40 centimètres boo ko wëralee mun na def benn bu nekk pour cinquante six la ñaari mooy nekk pour cent six boo taxalee ñaari wër dëkk mun na nekk sept galawaay pour cent six waaw seen waaw mu nekk sa léegi nag instant comme ni ñuy jàngee ci kii yi rek ci mbay bi ni ñaan pépinière bi nii ni nga gisee pépinière nga xam te ne daa am ay norme yoo xam te noonu nga def pour eh, yar fa eh, plante yi après nga yóbbu la ci tool hmm. élevage tam noonu la da ngay yar ci poussinière dañu dëgër nga yóbbu leen plante voilà kon ba léegi euh, yéen a ko déggandoo wax na ci wàllu surface bi comme euh, si dañ lay bàyyeeku bu nga noppal ñëw ci sëñ Malick euh, sëñ Malick tey bu ñëwee maanaam ci wàllu li nga xamante ne mooy mbay mi jëm fii nii yan yan fii la ñuy yan yan la ñuy bay fii parce que am na yu bëri xeet yu bëri fekk naa ko fi mais xëy na xaw ma seen i tur am na daal ma ci xàmmee xam naa bii moom supame la bii tamit ma téye nii nawe la yan diversité moo fi am fii waaw diversité. diversité yi fi am maanaam xeetu meññeef yi fi am euh, dafa doon euh, li nga xam ne yii dafa am yi ñu naan euh, meññeef yoo xam ne ren la mooy na bi nga téye ak lu mel ni betterave ak ay concombre ak yooyu mhm. am meññeef bi nga xam ne mooy légume feuille maanaam xeetu meññeef comme salade ay sukume ay loolu meññeef yoo nga xam ne ay xob la am tamit di légume fruit lu mel ni tamaate mu nga nee sa ginnaaw lu mel ni kànja eh, mu ngi nii jàng nga jàkkaarloo mu eh, eh, loolu xeetu meññeef yoo nga xam ne moom la doon ci kii bi bu loolu yu wëree yëpp comme ni ko Sidi waxee rek mbéy dafa ànd ak aviculture ma dafa ànd ak élevage nag boo koy boo koy wax yàpp bi si la ak mm, nen yi si la waaye nag tasbir si la te te domaine bii ma yore dafa ànd ak élevage mooy agriculture durable maanaam fi nga nekk da ngay da nga def sa métier te doo wuti tos doo wuti engrais doo wuti urée doo wuti lu mel ni ay ay ay tooke luy nématicide ay pesticide ak yooyu lépp nag li la wër rek nga ko def muy mimaag yeeg euh, euh, luñ naan Euh, moringa mooy mooy mooy mooy sap-sap di nebedaay ak lëtëna bi nga kii mooy garabu lëtëna bi lañuy ñuy pour mu doon urée wala moom la ñuy jël tamit di composé ko pour mu doon lii dàq euh, euh, li yàq gàncax gi yàq dañoo am jàng seen jàng mooy àggut ñenn ñoo xam ne tax am nañu bac sax ñu ngi nii ci génération bi am nañu bac ñu ngi ñëw di di liggéey pour suuf si lu muy génne mm-hmm. ak luñ ci mën a am ëllëg te métier doonul lenn loo xam ne moom ngay gàdduwaale doo dem di naan kat eh, bind na ay demande yooyu mais lii boo ko amee rek am espace maanaam eh, toolu yaatuwaay am ndox donc war ngaa mën a def sa kii te bañ a xaar kenn ndax mbéy moo xam ne dafa néew eh, li nga ciy li nga ciy frais dafa néew te li nga ciy am da ciy bëri dafay bëri lu mel ni nawet bi boo amee plan su nawet téeméeri maanaam plan sunnaay wala plan soraaw ngi naan soraaw soraaw mooy suuraaw mhm. boo ko boo ko amee suuraaw bu nekk war nga ko jaay am na jamono yoo xam ne da nga ko da jaay ba fanweer ba ñeent fukk mhm. bu dee euh, bu dee téeméeri soraaw nga am donc boo fukkee ñeenti junni lay doon nga am si fukki plante mhm. donc eh, eh, ñeent fukki junni taxaw na ah, si euh, lu tolloog weer ak genn wàll donc nga mën a demaat si lu mel ni kànja semaine bu nekk kànja day toll jamono yi fu mu toll jamono yi kànja boo ko bëggoon a am rek ay kilo 800 lay doon dana dem ba kilo 2000 bu euh, euh, euh, li ñu ne batañ sax xam nga jamono yi nawet lañ nekk donc mbéyum witt ngay ngay ngoy moo tax nga gis fii espèces yi wala variété yi nga xam ne witt la muy lu mel ni tamaate lu mel ni kànja lu mel ni jaxatu yooyu nga fi def nga xam ne day ñetti fan yu nekk nga witti jaay. fekk nañ fi ay ndaw yoo xamante ni euh, ñu ngi jàng ci wàllu agroécologie maam lu jëm ci sàmm ak euh, mbay euh, suñ tur naka la. góor a puy waaw góor li ñu lay laaj rek maanaam fekk na la fii yow ak sa yeneen i morom macha allah xaw ngeen fi bari torop ñu gis ndaw yu bëri xëy na ñu ngi daw jëm ci école yi ñu di jàng lan moo tax nga tànn tey ñëw fii ci centre horticole bi. waaw li tax tàmm ñëw fii mooy que pour sàkku fi xam-xam waaw moom fi ànd nii dëgg la bien vrai que jàng nañ xam nga mais tam en instant loo gis lu na rek euh, da ngay da ngay tenter sens daal mm-hmm. waaw loolu waaw loolu ñu fi andi tam pour sàkk fi xam-xam xam nga mun fee gis daal loo xam ne ni ëllëg ñun mun nañoo jëriñu ñun ñëpp mm-hmm. waaw loolu daal waaw ah benn métier bi am am na dama ko gis nii bëgg naa ko ci sama xol parce que de un sam ci lay yëngu moom tool la yor day bay mais dama gis ne lu ci ëpp liggéey liggéey liggéey bi ñuy liggéey fi daal am na importance. voilà kon maam Diarra ba léegi li nga wax leer na daa mel ni amour moo tax nga ci maanaam bëgg-bëgg bi kon lan ngay wax sa moromu jigéen yi nga xam ne dañoo jàpp ne bay dafa metti wala yar dafa metti loo leen di wax. ah li ma leen di wax moom kenn ku ci nekk sa bëgg-bëgg la rek parce que nit ki moom mënuloo koo xëcc ci loo xam ne bëgg ko mm-hmm. nit ki moom buy dem ci dara day fekk mu bëgg ko après soog cee mais teewul ne ñun ñu ngi jàng ba tey mais teewul ñu ngi yëngu ci lii parce que man def naa formation bu ñuy wax maraîchage mais bi ma gisee bii tamit damaa jàpp ne complément la rek moo taxit ma ñëwaat duggaat ci. voilà rafet na kon yéen a ko déggandoo xam naa ne duñ jël temps bu bari ndax euh, temps bi xoj nañu kon mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox dig daje dans 15 jours seen présentateur la woon tey Diagne Lamine ànd ak sama caméraman bi euh, Papis Diallo jërë ngeen jëf.